Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa ngi lay fay Elisabeth. ngay analyste politique euh, tey euh, gannaaw ba ñu déposé liste yi gis nañu euh, donc li nga xam ne moom mooy tête de liste coalition yi gën a mag yi fi nekk tey Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi mu mel ni dafa am benn dualité entre Sonko et et Mimi Touré tey boo ñu doon déterminel wala sax nga ñuy analyser profil yi chance ku nekk lan la. waaw mën nañu wax bu dee coalition Yewwi Askan suñu tànnee Ousmane. Ousmane Sonko def ko tête de day wone que Ousmane Sonko nangul nañu euh, Ousmane Sonko chef de parti la ko am baat ci biir yeewu askan dañu am yaakaar ci moom dañu dañ ko wóolu pour mu euh, de nekk seen kanam diriger seen liste euh, ci législative yi loolu day dooleel day dooleel Ousmane Sonko ci biir yeewu askan daf koy dooleel itamit comme chef de parti mais comme leader que tey jii euh, Sonko nekk na leader euh, force euh, bi nga xam ne ci opposition bi Yewwi Askan moo ëpp doole loolu soo jiitee force boobu loolu yaakaar am na ci wóolute am na ci aussi leadership am nangul nañ ko moom man na jiite opposition. kon lii nangu la ni Sonko kon tey am na benn assise Euh, bu mu am au niveau national. am na loolu loolu moom soo soo gisee euh, waa taxaw waa PUR. ak yeneen alliés yoonu askan ak ñeneen ak ñeneen nangul Sonko loolu. mais loolu responsabilité bu la rëy bu ko confié mais loolu aussi moom moo ko xeex. Mm-hmm. moo dem présidentielle am quinze pour cent euh, dem élection locale gagné. nekk aussi leader ci biir opposition bu ñu ràññee. Euh, loolu lu lu lu bu rëy lañ ko lañ ko jox nangul nañ ko aussi que moom bokk na ci ci njiit ñi nga xam ne euh, ëllëg yeewu askan am na yaakaar ci ci Sonko. ci wet wi benn bokk yaakaar mi ture mu dellu siwaat gannaaw nag ay euh, jamono yi nga xam ne kenn déggatu ko woon mu mel ni ku moom la yaakaar tey pour benno defaraat toogaayam ndax profil bi tey moo ngi fi. waaw mën nañu wax ni que moom dafa yàgg dafa yàgg ci politique yàgg ànd ak euh, Macky Sall amoon na ay jafe-jafe. mais loolu su Macky Sall ak ñi mu àndal suñu d'accord ñu tànn euh, Aminata Touré pour mu jiite seen liste loolu dafay wol ni que ñoom xam nañ ni responsable am na compétence am na lu mu leen mën a indil lu mu leen mën a indil nag mooy jigéen la nga xam ne yàgg na xeex xëy na moom su jiitee dina mën a wax ak jigéen ñi dina mën a wax ak xale dina mën a wax ak acteur politique yi donc loolu responsabilité moom tamit lañ ko lañ ko jox euh, wane confiance euh, Macky Sall bi na Euh, léegi nag euh, lu ci des mooy jëf bi est-ce que dina am résultat yi nga xam ne yaakaar nañ ko dina ko indi bon loolu nag mooy problème bi. et justement ndax moom li nga fi tudd dëgg la euh, moom la ñuy wax ci homme politique mais la des ndax fal na nit. waaw loolu mooy am na jafe-jafe moom moom am na xam na ni am na jafe-jafe jéem na am base ci biir. Euh, Grand Yoff jëm na am baag ci biir kaw Kaolack mais loolu yëpp sottiwul ay défaite la ci am mhm. bon loolu problème bi mu am moom amul base territoriale beneen aussi problème bi mu am mooy que ci biir APR dañ ko yàgg xeex est-ce que léegi ba nangul que moom moo nar a diriger dinañ nekk am loolu moom des naa wóor ci biir benn aussi am na ay leader ñi nga xam ne ànduñu ak moom dañ ko mës a xeex Euh, ñooñu su fekkente ñu ngi koy xeex ba léegi dina am jafe-jafe wante bu ñu na bu ñu nangulee mu jiite euh, ñu respecté ku ñu am confiance seen diggante mën naa am mën naa am résultat résultat bu baax. tey ndax tegaatoon li nga xam ne moom lañ ñu amaloon euh, élection territoriale yi ñu wees gën koo renforcer du doon doon lu gën ci Benno maanaam euh, profil hmm. yi ñu fi tegoon euh, ci élection territoriale yi maanaam Diou Amadou Ba ak euh, Diouf Sarr. waaw loolu moom jafe-jafe jafe-jafe la naroon naroon indi suñ ñu tegaatoon ñooñu ñu diriger Macky Sall ci lu may gis daal ci politique moom bëggul defet soo soo amee défaite lu lu lu lu ñu gën a gi ràññee mooy que daf lay sanctionné donc ñooñu daf leen sanctionné dafa wane comme bëggul jëlaat beneen risque xam na Sénégalais yi. Euh, suñu la sanctionné nga nga delluwaat soo moytu duñu la san euh, duñu la sanctionné beneen yoon. Hmm. donc loolu tax mu changé stratégie mu indi nga xam ne ku bees la euh, xëy na image am moo gën a baax image yeneen nii wante loolu pour mu am su moytul daal risque bi bi mu naroon am su defoon reconduction ak risque bi mu jël ñii mooy que Sénégal yi sanctionné sanctionné majorité présidentielle su fekkente ne électeurs yi ñu ngi continuer toujours di xalaat sanctionné soo moytul lu taxoon ñu sanctionné ñi nga xam ne ñoo jiite woon euh, benno ci local yi soo moytul législative yi dinañ leen sanctionné aussi ko et justement euh, ay weer si ginnaaw déggoon nañu wàllu euh, doon wax ne dañoo war a taxaw tem amal opposition wala ay alliance yi nga xam ne dina dëggër ba ñu imposer cohabitation tey ñu dégg wàllu ak Yewwi li ni mel ndax war naa tiital nguur gi fi nekk. ah war na leen tiital parce que boo boo xoolee résultat Yewwi ak ak wàllu. ci élection locale yi euh, APR ak Benno dañu def defet dañu am defet bu rëy bu rëy euh, boo xoolee Thiès naka noonu Ziguinchor naka noonu donc ñooñu suñu boolee seen doole euh, soo moytul ñoom ñoo nar a jëlaat département yu bari fépp foo xam ne opposition bi am na ci doole muy wàllu ak yeewu askan soo xoolee national bi aussi électeurs yi suñu gisee tey jii que wàllu ak yeewu ñoo ànd que ñu ngi dem ci assemblée nationale te électeurs yi dañu bëgg président assemblée nationale mu jóge ci opposition bi loolu mën na indi électeurs yu bëri boote leen donc loolu menace boobu bu dee département yi menace la bu dee liste nationale bi menace la Euh, defe naa Benno xam na xam na que loolu risque bu rëy euh, wàllu ak euh, yow askan bu ñu àndee mën nañu am ndam bu gën a rëy élection locale yi. kon daal mën nañoo am lii di cohabitation comme ni ko opposition bi junjee donte am na ñi nga xam ne ba tey ci opposition bi booloo. boo xoolee résultat élection locale yi li muy wone mooy que Sénégal yi dañu bëgg changement. de affaire de de défaite ak défaite Benno lu muy firnde mooy que Sénégal yi askan bi dafa bëgg a donc ñaareelu changement bi mooy assemblée nationale mais su fekkente ne électeurs yi ñu ngi continuer bëgg changement dëgg-dëgg cohabitation man na am su fekkente ne yi dem nañ ci coalition bi nga xam ne moo boole wàllu ak yeewu askan. mais nag opposition bi bul fàtte ne ànd ñu ñoom ñëpp donc dina am ay euh, dispersion de voix. dina am beneen opposition bi nga xam ne dina jot a fortaatu leneen waa xam nga xam nga assemblée euh, dafa dafa doy waar électeurs yi ñu toll nii xam nañ ne que euh, bëgg nañu changement même ñi nga xam ne ñu ngi ci ñi nga xam ne opposition la ñu faral di voter hmm. suñu yaakaaree cohabitation mën na am penn rek la mën a jaar mooy booloo opposition bi loolu la Sénégal yi laaj depuis depuis des années hmm. donc ñu gisee yeewu askan ak wàllu ànd soo moytul électeur opposition dañu def vote utile da dañuy vote coalition boobu pour mu mën a am majorité euh, parlementaire ci hmm. opposition bi hmm. électeurs yi ñooy décider et soo moytul soo xoolee local yi bon partout électeurs yi dañu dañu tànn coalition bu gën a dëgër Mm-hmm. donc législative bi soo moytul aussi loolu mooy noonu noonu lañ nar a noonu lañ nara a boote. Mm-hmm. limitation des mandats coow li dellu si waat na euh, njiitu réew moo ko andiwaat moom mi ne woon nit ñi nañu bàyyi coow lool te dem liggéeyi euh, tey mu mel ni euh, waxatul nii wii nii non mais ilimix lay wax ci wàllum mandat yi di ko proposé. waaw loolu moom bett na bett ñu bari parce que fu mu toll nii président Sénégal moom mooy président. Euh, jiite Union africaine. Mm-hmm. su génnee wax jooju fekk ku xool Afrique tool sànni sa di nga gis ne euh, réew yu bari muy Mali muy muy Burkina muy Guinée muy même d'Ivoire réew yu bari lu leen am lu tax ñu am ay cow lu tax ñu am ay coup d'état mooy mandat illimité. nit ñi Afrique yi ñoo bëggatul mandat illimité suñu président nag nekk njiitu Afrique wax wax jooju euh, dafay yàqal boppam mooy dafay yàqal boppam ci biir Sénégal aussi dina yàqal boppam parce que ñi ñi nga xam ne dañ doon dañ yaakaaroon que président du laaj troisième mandat léegi ñu bëri dinañu xalaat ne que président bi soo moytul dina nekk candidat donc loolu di dina wàññi dooleem lu daloon euh, Abdoulaye Wade 2012 soo moytul loolu moo nar dal président Sall nit ñi dañu dañu sonn dinañu wax ne euh, ku nekk mën na nekk président na dem na dem lañ nar a yuux encore fii ak euh, deux mille vingt quatre. Mhm. nga foog ne li ni mel mën naa tax mu ñàkk électorat ci élection législative yi ñu dem muy mauvaise communication. mais mooy mauvaise communication c'est-à-dire tey jii. Euh, boo demee législative 31 juillet. Mhm. ñi nga xam ne bëgguñu woon mu am troisième mandat deux mille vingt dañuy wax nañu profiter ci élection législative ñu sanctionné président soo amul majorité assemblée dina dem euh, nit ñi noonu lañ nar a calculer li wax bi mu génne euh, mauvaise communication moo tax nit ñi euh, di soo moytu dinañu sanctionné benn sanctionné APR et bi aussi même présidentielle deux mille vingt quatre soo soo moytul lu daloon Ablaye Wade moom moo ko nar dal nit ñi dinañu dinañu bañ. Euh, moo am troisième euh, troisième mandat. tey nga jàpp ne lu tax Macky Sall di euh, faral di fakastalu ci ay discours am. mais moom kenn la président dafa nekk def moom kot moom kot. moom moo yore kon lu ko conseillé di njëriñ. mais ñoom bon dañu ragal ah, wax wax ko loolu waxoo dëgg. que que ñoom ñemewuñu Macky Sall muy APR muy Benno dem loolu la ñu gëm lu mu wax loolu la ñu loolu la ñu def kenn ñemewul. jaakaarloo ak Macky Sall wax ko dëgg wala wax ko lu mu xalaat Macky Sall wane nag wane na aussi loolu ay conseil yu bëri dàq na leen ay ministres yu bëri dàq na leen ay responsables yu bëri dàq na leen ñoom ñëpp teg nañu seen bët donc loolu tax ñu noppi kenn sañu amatul euh, courage dem wax président bi parti bi nii la war a tëddee coalition bi nii lay tëddee euh, sa waxin nii la war a tëddee bon moom kot moo nekk ci nguur gi et loolu su amee situation bu mel noonu euh, toujours da ngay def ay erreur parce parce que nit nit la rek euh, euh, bu gën a defar wante bu day jóg kenn yaay xalaat yow yaa def même ci réponse travailleurs yi comme ni nga ko waxee moom mooy génn di di wax ak collectivité territoriale moom mooy wax ministre moom mooy wax ak yi syndicats yi bon loolu Euh, defe naa jafe-jafe bi mu am ci communication foofu la foofu la jógee. kon daa weet ci gestion bi ndax dafa euh, firndeel ne euh, ñi muy àndal dañ ko seetaan wala ragal googu ngay wax sax moo fi nekk. mais mooy mooy mooy mooy soo gisee daal mu diis lool wuur bi dafa lu mu yore dafa diis te fu mu jëm moom rek moo xam. mais ñeneen ñi dañuy toog di seetaan parce que bëgguñu de de perturber ñu bëgguñu wax euh, li nga xam ne lii dina tax ñu dàq leen ñoom ñëpp ñuy xaar euh, le le le euh, amuñu courage boobu c'est vrai que dañu ragal c'est vrai que aussi président wanul wanul jikko bi nga xam ne nit ki dafa ubbeeku accepter débat contradictoire moo amul loolu la Macky Sall nangul nangul débat contradictoire nangul divergence même boo gisee opposition bi problème bi muy am mooy loolu dialogue bi ñëpp d'accord nañ ci mais toog ak sa opposition waxtaan ak même même bu dee bokk leen gis-gis man ngeen am consensus euh, ku nangulul loolu parti am ak majorité am xam nga doo du ko nangul euh, opposition. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ma ma Mamadou Sy Albert euh, vraiment ci disponibilité bi. maa ngi lay fay Elisabeth merci beaucoup Elisabeth merci beaucoup.